yëkkati naa ndakaaru day fas na yéene soppi jikko dana soppi tur am déet Dakar Times ne ma xam en tout cas ndakaaru seenu dem ak dikk day dina gën a yomb yéene kaay bi ne ma train express régional dikk na tribune yéene kaay daal di may xamal ne tey jii la ñuy inauguré train express régional bi te président Macky Sall day moo koy def Sud Quotidien daal di ne ma xaar baa yàgg nag waaye xaar bi lu mu yàgg-yàgg train bi ñëw na critique yéene kaay daal di may xamal ne sénégalais yi kay mujj nañoo gis nag teer bi ndax nag yàgg-yàgg teer bi daw na laas yéene kaay daal di may xamal ne moom moom train express régional daal dinay taxaw nag ci raayam Sénégal daal di jubaat jubbantiku ndax lan teer bi daal dinay daw laas daal may xamal ne Mansour Faye yokk na ca ne fukki fan ak juróom sénégalais yi na nañoo jël teer bi te duñu fay dërëm l'exclusive yéene kaay ne ma président Macky Sall kay jamono ji nag dëgg-dëgg mi ngi ci liggéey bi projet la boo xam ne bu mag la ñu wax ko te faatu mbaate dund train express régional rëy na daw na gaa ngi doon laam-laamee nag akum ndawam Ousmane Sonko moom bokkoon na ci ñi koy njëkk laam-laamee l'évidence yéene kaay mel ni kuy dox dëgg man Sonko daal di xam ne ni terrain bi day daanu ko inauguré waaye nag ak ndawam sénégalais yi di ci fay di dem ak di dikk yàlla la wóoragum l'évidence yéen kaay daal di may xamal ne terrain bi bés buñ ko inauguré daal di koy essayé fukki fan ak juróom dañ koy ndar keppaat tëj ràpp kay ndax noppeegul ouverture fermeture lay am direct news daal di ma ay chantage moo ca am de ndax nag entreprise française yi ñoo bëgg santé looyu Sénégal yi ñoom ca projet exploitation terre bi dañu bokkoon dem nañ nag ba daal di xamle ni feebar bi mënta daw ci fin d'année bii bëgg ngeen ko yàkkam ci loolu waaye mënta nekk ndax nag certification ya war moom la train express régional bi amul direct news daal di may xamal ne autorité yu Sénégal yi naka la leen nasaraan si wax loolu ñu daal di koy dàq ne leen décembre bii teer bi dina daw ci nii mbaa ci naa ndax nag ñoom société yooyee laataa ñuy jébbale certification yi war dañoo bëgg Sénégal jébbal leen ay milliards yu sakkan lool direct news ne ma Sénégal dafa lànk mi ay chantage la gën a nombre bi dina daw tribune ne ma xanaa déggoo TER bi kay moom day daw tey lañ koy inauguré l'évidence yéene kaay ne ma dañ koy inauguré tëjaat ko na leer Sud Quotidien ne ma train express régional bii bu ca ñeen ñi bëggee ña ca mer am cag métit jële tey jafe moo ëpp yéene kaay bi daal di may xamal ne xaar bi yàgg na lool waaye ña seen yaakaar yanki ko ci TER bi moo ëpp ña ñu waroon ndàmp ba tey jii jeexagul des na pont ak tunnel yeen fa daal di defar askan wi mënuñu koo dékku yëpp adapté ak suñu dund ñun Sénégal ñett ci quartier ci Caaroy TER bi daal dina leen di yóbbu bu barzaq tàbbal na leen géej kay amatuñu Sud Quotidien xamal ma ne juróom ci entreprise yu réewum Sénégal daal dinañ ciy dugal seenu loxo lu toll ci juróom-ñetti junni ak juróomi téeméer ciy liggéey katu Sénégal dugal seen loxo ci teer bi cey teer bi train express régional source aane ma neel cey ñu nag nasaraan si juróom-ñetti téeméer ciy liggéeykat yee dàq nañ leen ci plateforme ba nga xam ne ñoo nekk ca mool huit ci port bi lu toll ci junni boo moytul fii ak juróom benn weer yéeni kaay bi ne ma daañu ñàkk seenu liggéey ndax lan leen doon liggéeyloo moo noppi daanaka yéeni kaay bi ne ma bu nguur gi kontaanee ci jot gi mu bëgg a jot pétrole beeg gaz bi am nay liggéeykatu Sénégal yoo xam ne daañ ci ñàkk seen liggéey turbine yéene kaay ne ma fii ci Sénégal waxub ngóor jigéen lañ fi wax bëgg koo criminaliser le quotidien le quotidien ne ma Benno Bokk Yaakaar ànduñu ci criminaliser boobee ndax le nañu ba Sénégal sosoo ak tey dañoo masa a mbiru góor jigéen te am nag loi boo xam ne moo ko fi aaye am daan yu ñuy teg képp koo xam ni fekk nañ la ngay sëy ak sa moroomu góor sa moroomu jigéen ay meru ñing ne loi biñ fi bëgg andiwaat lu dul politique taxu koo Sénégal ci le quotidien le quotidien ba tey ne loi bi ñuy waxtaane prévoirul délit homosexualité maanaam njëf la sëy wa lay daan waaye nekkub ngóor jigéen ci réew mi di ko doxee ñëpp tekki seenu gët boobu le loi dax ko te loolu la ñu bëgg tribune yéene kaay ne ma yéenay wax ba mar rek nopp waaye réewum Sénégal gii loi bi fii criminaliser góor jigéen bu fi jàllee nga xam ne yàllaa ca jàpp yéene kaay bi dee média bi xam le ni loi ba day déposé nañ ko ci assemblée nationale leer na waaye boo moytuwul ca table lay teg ba fa fa poussière ak maxe kenn du ko mës a wote ci réew mi altine ñun dey suñu député fas nañu yéene wote bépp loi boo xam ne dina criminaliser góor jigéen tribune yéene kaay ne ko xanaa déggoo ma nguur gi ci boppam moo nekk ci guddi gu bët setagul ci boobule loi ñay dugal koppar gi ci réew mi ñoo ko xoj tiim ko yem ko fu ko yàlla yemul ci it mu bañ a woteelu loi bii ndax bu ko defee la doon niinal ceebam dootul di ci réew mi waaye waxtu waaw nguur gi mi ngi jàkkaarloog askan woo xam ne ña nga gàddu seeni kuuri roof 24 heures yéene kaay daal di xamal ne Sénégal la ko teree nelaw jamono jii dafa bari lool ndax góor naa su Macky Sall mii càccu koppar gi bari na ci ba jéggi dayoo Macky Sall nag demam war naa gën a rafet lii tribune daal dina ma mi ngi bëgg ñaaw de te buñ ko seetaanee ñaaw lay mujjee xoolal ma rek IPRES ak liggéeykat yi jafe-jafe yu metti la ñuy dund saa si ba tey suñu mag ñi mënuñoo jot seeni pension muy lu metti ba jéggi dayoo ay assises la ñuy sàkku ngir jooyanti IPRES teggil mag ñi jafe-jafe yi tribune yéen kaay ne ma mbaadu ma mambay ñaa ay jafe-jafeem da koy bëgg dëddu lu ci mënti am daal xol baa ngay bëx-bëxi ndax nag ñaar ñu am doole ñoo ko jàppale si mu di Babacar Mbacke mu kabaroo ak Ayda Ndiongo Gaynde Waalo ga ci stade Marius Ndiaye la ñu woo seenu nit xam le ni fas nañu yéene jàppale coalition Sénégal 2035 ngir nag mu gañe maire bu Ndakaar bi mambay ñaa gën a xoggali mbag yaakaar ndam ci Ndakaaru xam le ba tey ni programme am fa mu nekkoon jugu fa juróom-ñeenti poñ yu mag la fas yéene joyentee Ndakaaru te jàpp na nit programme am boobee ci la Abdoulaye Diouf Sarr sukkandiku ngir taxawal programme bii di Dakar émergent laas ne ma nga man ma xibaar la ni ko ëpp fit